kii moom mooy cuuraay bi nga xam ne mooy cuuraayu lii lumu lii lumu dafa réeroon ci jamono juróom benn fukki at ci ginnaaw nit diggatu ko gis nit gisatu ko alhamdulilah yàlla delluwaat na ko suñuy loxo mag ñi ñoo ko doon jëfandikoo léegi amatutoon ci jamono kenn xamatut koon ndax dafa réeroon yàlla nag moom mooma ay mbiram mooma indi ay xam-xamam moo koy génnee moo koy delluwaat cuuraay bii nii nga gis ni juróom ñaari fukki mbir lay fajandoor ci benn instant juróom-ñaar fukki mbir lay fajandoo ci benn jamono ci benn waxtu bi suuroo